tey bésu talaata ñaari fan ci weeru février mi nekk ministère la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ay cas communautaire lañ mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ci leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee ci gox yi may waaj a lim Kaolack am na ci juróom-ñeent Thiès. juróom-ñaar juróom-benn ci mbuur ak Touba juróom ci Mariste ñeent ci Amitié Jëppal ak Zac Mbao ñett ci Dakar Plateau Kédougou Liberté 6 Mermoz ak Rufisque ñaar ci Géejawaay Kolda Linguère Matam medina Ngor ak Popenguine benn ci Almadi Daara Cambérène cité Aliou Sow Aliou cité Gadaye cité impôt et domaine Colobane Derklé Diamniadio Fass Delorme Gibraltar Grand Mbao Grand Yoff HLM Fass Kanel Kër Massar Mékhé Nord Foire Petit Mbao Rebeuss Sangalkam Sébikotane Sokone Thiaroye Azur Thiaroye sur Mer Thilogne Tivaouane Yeumbeul ak Ziguinchor ñaari téeméer ak fukk juróom-ñett ci malade yu entré woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi wéer nañu bës nikki ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde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 ñaar fukki junni ak ñaar ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett wér nañ ci juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo génn àdduna mu des ñeent junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom si lalu hôpital yi wala ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi.